ñu ngi sant yàlla sunu boroom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Cheikhuna alxadim di ñëwaat ak yenn ngir wéyal waxtaan yi nga xam ne baaxoon nañ di ko def ci altine bu ne ak ajjuma ngir bëgg mbokk julli yëpp mën cee jariñu ñu ngi woon ci téereb sëñ ma Lamin boobu tudd Nubza Mubaraka ñu tolloon ci di leeral sëriñ bi ci jamono yi mu tollee ci am njàng ak doxalin nga xam daana ko doxale ak sëriñ Mor Anta fii nag sëriñ ma Lamin mm, di wax ne xoolal ci misaal euh, xoolal euh, li li jëm ci wàllu téere boobu xam nga ci waxtaan wale ñu ngi doon wax ci ci téere boobu nga xam ne sëriñ bi Euh, daa fexe ba am ko ci anam gu sell ndax bëggut di jàng ci téere boo xam ne am lunt da ci am wala yu wala yu mel noonu mhm. moo tax mu naan xoolal euh, ci téere bi liñ ci wax waaw man li la ci wax ci ne sëriñ bi noonu la def ba am ko ci wàllu sàmm ak itte ji nga xam ne def na ko ci nga xam ne ba bëggut a jàng ci téere boo xam ne lënt da cay ne tax na mu faxe ba am téere bi ci anam gu sell ci waaja ko nga xam ne moo ko moomoon ca cosaan ak itti jëm ca def ba mu fexe ba am ko mu ne nag loolu mbir la mu yéeme te téere bi bi bi ñu nekk nii di ci di ci di ci di ci <coughs> di ci jàngale mbirum sëñ bi muy nopp sa bii nga xam ne sëñ Bada Lamine moo ko def sëñ Bada Lamine nee na téere bii euh, bunt boo ci jël wala faslu boo ci jël te muy wax ci sëñ bi da nga gis ne ñaar yooyu euh, da cay da cay da cay da cay da cay àndaale mooy ak wara te muy sàmm gu sëñ bi sàmm ak itte ju kawe joo xam ne am na ko hmm. nga xam ne kon da ngay gis ne yàlla euh, boo bokkee ci ay gaayam ba mu cëral la jox la ay mayam il faut que rek ma googu euh, da cay da cay da cay da cay daal di àndaale mooy da am ak ittiwu ci lu baax am ittiwu ci lépp loo xam ne rek mooy tax nga mën a am li nga bëgg mhm. bu ko defee rek mu nekk ndimbalul yàlla loo xam ne yàlla moo koy may jaamam bu ko sopp bokk na ci euh, li nga xam ne sëriñ bi wax na ko nee na euh, bokk na ci li ma yàlla xéewalal ci jamono ji nga xam ne maa ngi tollu ci am njàng mooy dafa mel ne dafa ma bëgg loo daal naar yi naar yi nga xam ne ay boroom xam-xam nañu waaw dama leen a bëgg te xeebuma leen daal waaw nee na euh, girub naar gi maanaam mbooloom mbooloom naar mu ma gis rek ñu ñu ñu wàcc ci mpenc ci pénc yi nga xam ne euh, maanaam dafa jege woon ak noonu waaw ci gox yooyu fu ma fu ma dégg ñu ne euh, ay boroomi xam-xami naari ñëw nañ fa luy mel noonu rek danaa fa dem fexe ba lu ma leen mën a ganalee euh, ma ganalee leen ko lu ma leen mën a jox daal ci teraanga ma def ko te loolu day doon lu may nëbbu maanaa daaw ma ko daaw ma ko def ci anam ko fés waaw waaye daal dama ko daan dama ko daan def ci làqatu waaw su ko defee nag ma ñëw jox leen la leen di jox te la ma la ma ci jublu rek mooy na maanaam ma mën a jariñu ci seen xam-xam yi nga xam ne yàlla def nañu am ko ndax maanaam xam naa ne du ñàkk ne Euh, danañ am njariñ loo xam ne danañ ko maanaam danañ ko àndaale ci ay xam-xam ak yu mel noonu su ko defee nag ma jël ma jël ca ñoom la ca baax ak la nga xam ne xaj na euh, xaw naa dese mel na ma ko bëggee waaye teewul rek su ma jëlee ba noppi doo ko tànnaat nag la ma cay la ma cay la ma cay la ma cay la ma cay ma jël ko jariñoo ko leneen la ci amul njariñ ma doo koo bàyyi nee na noonu nag lañu ñu nekkee man di ma wax Euh, ci seeni xam-xam daal ak seeni boroomi xam-xam ak yoon ya nga xam ne euh, ñoom ca lañ nekkoon ak werante yi ñu daan def ci wàllu xam-xam ak seen ak way yi ñu daan def ak ndamu ndamu xam nga naar yi euh, yu mel noonu dañ ko daan def di di def ay ay ay way ak yu mel noonu ak ŋàññante yiñ daan def ci seen way yi ak yu mel noonu ak euh, xam-xam daal yu am njëriñ ak ñi nga xam ne ay xokamaaw la ñu doon doon doon doon ñu mën a wax wax yu am njariñ seen wax yooyu yëpp dañu ko daan nattali ak seen boroomi xam-xam yi nga xam ne ci wàllu médecine ci lañ daan yëngu yañ ci indi ci ay xam-xam ak euh, seen sëriñ yi ñu am liñ daan wax ak seen wali yi ak karamaat yi ñu daan def seen xarbaax yi ñu daan def ak seeni ak seeni siira seeni seeni seeni seeni seeni histoire ak yu mel noonu ak ni ñu tabee woon ak ni leen waykat yi daan tagge ak ñi nga xam ne xañ dañ caa nay ak ni leen waykat yi daan ŋàññe ñoom ñi ñoom ñi xam ne dañoo nay ak daal yu xormu yoo xam ne xañ na da dañ ko daan nettali hmm. ak taalif yi nga xam ne borom xam-xam yi def nañ ko ci wàllu nas moo nga xam ne dañ koo way ak yoo xam ne ay wesar la doon ak téere yi nga xam ne euh, dañ ko sara ak ña nga xam ne ñoo ko doon sara ak ñi nga xam ne ay mu mu mu fa mu fassiroon lañu moo ñu daan firi alxuraan ak yu mel noonu ba tey seen wàlli yooyu seen barab ya barab barab yi ngeen denc ak Euh, tafaasile ci aju faram-fàcce yi aju ca bërëb yooyu yëpp nee na dañ ko ko daan nettali léeg-léeg sax nee na am ci ñoom koo xam ne ñoo xam ne dañ naa am waa tee ngaa ñëw bu ko defee ñu dem ca sama sëriñ sàngam ba ne foofa ca murute Mauritanie wala ca réew moom nekk su ko defee ñu mën faa dem bu ko defee bu ñu fa demee dana am solo nee na léegi sax. Mm, am na ci am na ci am na ci ñoo xam ne euh, dañ ma wax ne ma daal am na benn sëriñ bu bu baax bu ñu xam foofu nga xam ne ci ñi gën a màgg ci naar yi la bokk ñu ne ma daal da ngay da ngay ñëw bu ko defee maanaam ñu mën faa dem bi ñu ma ko waxee nee na ma nit ma nangu fekk nee nañ ma daal bu ñu demee moom dan dana dana mën a faj sa aajo maanaam li nga li nga li nga bëgg lépp dana la ko mën a defal bu ko defee suñ demee sax moom mën na laa seexal <laughs> waaye nee na biñ ma waxee loolu ba ma nangu waaye dama dama damaa daal di ñëw nag ci sëñ moor waaye di ko ci laaj ndigal ndax man na maa dem wala déet mën na ma déedéet waaw na mu daal ne lu ñu wax waaw neen waaw nee na bi ma ñëw ci sëñ Mor di di ko di ko tàggu di ko ci laaj ndigal daat ko wax la nga xam ne moom la ñu wax ñoom mu ne ma nag bul def lañ la wax bul dem yow daal toogal. te nga wéy ci sa njàng mii nga xam ne yaa ngi koy jàng waaw toogal rek maanaam nga nekk ci sam njàng li nga bëgg ci lu baax lépp incha allah dana la dikkal ci bërëb bi nga nekk waaw li nga bëgg lépp dana ñëwal fii ci Sénégal sëriñ bi nag nee na euh, ni ko sëñ Mor waxee woon rek noonu rek la demee kon nag maa ngi ñaan yàlla nag mu fayal ma ko mu ne nag sëñ Mor nag noonu daal la doon doxee ak moom waaw noonu daal la doon doxee ak moom di ko laabiire ci muy gën a yëkkati itteem waaw di ko di yëkkati itteem ci ku yàlla nga xam ne daal du am soxla ci lenn lu dul yàlla waaw nee na daawut nangu sax di ma jaxase maanaam di ma di ma di ma boole ak yeneen doomam yi ci des wala yeneen mbokkam yi ci des wala yeneen jàmbur yi ci des toujours daal maanaam da ko daan ber mhm. ber googu mu ko daan ber nag nee na loolu tax na mu xaw a indi ci moom ak euh, jeexi jaax daal waaw maanaam ci njalbeen gi ndax nee na ni mu ko ni mu ko ni mu ko tëjee dal maanaam ni mu ko ni nga xam ne noonu la ko beree dal ba du jaxasoo kenn du jaxasoo ñi mbokkal du jaxasoo ay jege ñaalem du jaxasook jàmbur yi moom daal da ko berne loolu daal andi andil na ko ci njalbeen gi ak jeexi jaaxa waaw loolu it nee na tax na mu mujj nag moom it mu daal moom sëñ bi nee na ma xaw a xat lool ndax du mujj na sax ay yére yu ma sol sax taxatut taxut ma am ko dem naa daal ba xawwa a euh, doon ko tumuranke ci ay maanaam maanaam ci ay yére ba tax na euh, guddi rek laay génn guddi nee ci guddi gi daal laay nangoo génn ndax ginnaaw amatuma ay yére yu ma sol guddi gi rek laay génn su ko defee euh, walla wala wala boog su ma génn damay dem ci àll ba ci àll ba rek laay yendu du ma du ma du ma nangoo nekk ci biir dëkk bi ci biir nit ñi te su ma nee ci àll ba bu ma fa yendoo bala maa ñëwaat guddi rek lay doon nee na bi lii amee nag mujj sax ma daan ma daa di ma daa di ma ma daa di tàggu sëñ Mor ne ko daal damaa bëggoon a dem mm, ci mm, benn bërëb daal boo xam ne dama fay dama fay nekk man faa bind ab kaamil wala bokk ma mën faa bind xaajub kaamil waaw ma bind ko ma man ko bind su ko defee ne su ma ko bindee ba noppi nag ma man koo ma man koo ma man koo jaay euh, njëgg ma mën caa jënd ma caa jënd yére yu ma sol bokk waaye nee na taxut sëñ Mor jox ma ndigal ne ma mën ngaa def loolu nee bi lii amee nag nee na ma daal di wax sama xel ne ah waa lii moom daal ni ma tëjee ak ni ma ni ma gi daal waa léegi moom moom moom moom na lool di moom kañ nag lay jeex maanaam kañ laay dem nag baa du ma baa du ma far sax nekk ci lii ba far sangu nee sëñ bi di wax loolu ci ma Euh, maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi waat ne nag wax dëgg yàlla booba euh, taxu doon daal ma xam ne euh, sëñ Mor lii moom ak bëgg moo tax mu di mu ko def wala boog damaa bañ waaw waaw moom man damaa tëj rek nanguwut nanguwut ma def lenn maanaam lu lu lu lu daal ne ci njàng mi rek ay yére sax mujj na ma mënatuma ko am te su ma ko bëggee wut mën a ma déedéet nee na ma ne ah waa lii moom moom dafa ma bëgg wala dama bañ waaye nag yàlla def mu mel ne moom damaa tontu daal damaa tontuwaat gannaaw bi ndax nee na ci lisaanu xaal la la la ma la ma doon xalaat di ci am ak jiixi jaaxa ne sëñ Mor dafa ma caa tontu ci gannaaw bi na ma ca tontu nag mooy dafa am ku ñuy wax Ibrahim al Fuuti yi eh, yàlla daa def mu ñëw daal di gane si sëñ Mor nekk fa daal ab diir bis bi mu waree dellu nag ba génn sëñ Mor ànd ak moom di ko gunge ak mbooloo mi mu àndaloon ne bi ñu demee nag ba tolloo ak néeg bi nga xam ne mooy sama néeg bi ma euh, bi nga xam ne fa laay euh, faral di nekk ne sëñ Mor daal di wax mbooloo mi ne leen mën ngeen a mën ngeen a mën ngeen a mën ngeen a continuer yéen mën ngeen a dox ngeen may ma tuuti ma waxtaan ak Thierno euh, ma waxtaanu ak Ibrahima al Fouti mi. nee na bi nit ñi bi nit ñi demee continuer ñoom ñoom ñaar ñu daal di taxaw nag ci wetu néeg bi nee boobu man maa ngi ci néeg bi nga xam ne daal lu ñu wax danaa ko dégg waaye néeg bi nag dañ koo sakk maanaam bunt bi dañ koo tëj mhm. nee na ma dégg sëñ Mor di wax Cerno ibrahim moom di wax jëmi gan gi naa ko ah, ma daal sama soxla mooy man sama itti jëpp daal mooy sama doom jii nga xam ne moom laa gën a bëgg ci sama doom yi te moom laa ëpp yaakaar te euh, moom daal nii nii nii daal la mel nii la ko yàlla mel nii la mel neen daal wax ci moom aw yiw bare bare bare bare bare léegi nag damaa bëggoon nga ñaanal nga ñaanalal ma ko yàlla mu mucc ci lépp loo xam ne daal lu ñaaw la ak euh, ñey def lu ñaaw ñey def lu bon di def lu ñaaw daal yàlla musal ko ci ñoom musal ko ci lépp lu bon lu ñaaw ma bëggin nga ñaanal ko ba lim bëgg lépp mu am ko ma bëggit nga ñaanal ko ba sama xol mën a sedd ci moom àddina ak alaaxira ak yu mel noonu nee na sëñ Mor wax loolu Ibrahima Fuuti yi moomu nee ibrahim Ibrahima Fuuti moomu daan ko waa waa moom anamu sax mu ne ko lii de mooy néegam xaj na xam naa dafa dem ci fi ñuy jàpp jàppukaay bi wala boog mu wala boog mën a mu génn dem ci àll bi ndax bunt bi ni ma ko gisee nii mel na ne dafa tëjëm nee na Ceerno Ibrahima moom it daal di tàmbali nag di di di di jàng waaw maanaam di di ñaan ñaan gu metti daal waaw ba euh, euh, yëf yàgg lool nee na mu daal di nag bi bi ñaanee ñaan ñaan gu yàgg googu daal di tefli nag mu mel ne euh, maanaa maanaa da koo jëmale ci ne ba waaw nga xam ne dafa wëlbatiku jàkkaarloog néew bi ñaan ñaan gu yàgg jàng-jàng mu yàgg daal di tifli nag mu jëm ci néew bi sëñ bi nag bi mu defee noonu mu daal di wax ne incha allah saxul dana sedd ci moom maa li nga ci bëgg lépp da ko ci am waaw nee na fuuti Ibrahima Fouti moom daal di wax loolu sëñ bi daal di wax loolu sëñ Mor ñoom nag ñu daal di koy continuer sëñ bi nag nee na ci bis boobu ci bis boobu nga xam ne sëñ Mor wax na loolu mu wax Cerno eh, Ibrahim Cerno Ibrahim Cerno eh, Ibrahima fuuti moom daal def loolu mu def nee na ci bis boobu nag laa doog a xamee ne sëñ Mor kat. Euh, aaye gi may aaye nit ñi ak tëj gi may tëj daa xër rek ci sama mucc maanaam daa bëgg rek mu mucc bëgg rek ma baax moo tax mu def loolu yi muy def mu doon def loolu loolu nga xam ne moom la doon def sëñ bi daal wax ne Ibrahim moomu nga xam ne mooy Ceerno Ibrahim moomu nga xam ne moo gane woon sëñ Mor nee na moom la sëñ Mor tudde doomam ji ñuy wax Ibrahima yi nga xam ne moo nekk Daarul Muxti di borom daaru nee na Ceerno Ibrahim moomu la ko euh, sëñ Mor Anta Sali tudde daal di wax ne baatub Cerno baatub tukkulóor la maanaam dañ koy dàkkantal di wax na Cerno waaye tur bi dëgg dëgg mooy Ibrahim hmm. moom Cerno Ibrahim moomu nag nit ku baax la woon koo xam ne wàllu xam-xamam mi ngi ko jàng ci ku ñuy wax euh, Mahnat bun Abid ad-Daymani yi nga xam ne moo euh, téere boobu ñuy wax al muyassar al jalil ala muxtas ala muxtasar Cheikh Khalil moom moo ko def mhm. ñaari mu la yoo xam ne bu ndaw la ak mag benn bu ci nekkit ci eh, muxtasar Khalil ci lay wax mhm. Ibrahim moomu di Ceerno Ibrahim moom it nee na eh, werdu xaadir mi ngi ko jële ci Cheikh Sidiya al Kabir mhm. ba tey ci moom Ibrahim moomu lu bari ci waa Kajoor magi Kajoor yi ci moom lañ jële E, werdu werdu xaadir mhm. moom nag nee Fuuta la dëkkoon ci ci gannaaw Maatam ci foofit e, fa lañ ko fa lañ ko fa ko reye ki ñuy wax e, Abdul Boubacar Abdul Boucar Abdul Boucar bokkoon ci buur yi nekkoon ci gànnaar ci yooyu jamono moo ko rey fekk booba nee na mi ngi ci biir jàkka ji di julli suba wax nañu sax nee na bi mu bi mu déggee eh, <laughs> xanaw yi di takk maanaam bale fital yi takk da dafa dafa wax ne waa lii lu mu ñu ne ko ah, saay-saay yi kat daa mel ne ñëw pour xeex yow mu ne ah ñoom kon noonu la ñuy def bi bis bu ñu defee bis bu ñu defee noonu di du ñu taqalikoo xeex mukk du ñu taqalikoo du ñu taqalikoo mukk maanaam guerre waaye nga xam ne nga xam ne nee ci seen ci seen làkk ñoom nañ doon waxee ñoom tukulóor yi noonu la ko waxee xab biir xaa jar maxanaaxaa waaw mooy xarb ila xarb mooy buñ jógee ci guerre dañuy dugaat ci guerre waaw waxtu waxtu woo xam ne ñëw nañu xeex ak moom song ko di euh, duñ fa la ñuy jaare dootuñu am jàmm mukk toujours rek ci guerre la ñuy dëkk nee na nam ko waxee woon rek noonu la demee ndax Abdul Boubacar moom nga xam ne ah, Abdul Boubacar moom nga xam ne moo ko reyoon moom it mujj na euh, ñu rey ko dañ ko mujj rey mhm. ndax booba daa génn ànd ak ah, alburi al buri nga xam ne <clears throat> moom moo nekkoon buurub jolof nga xam ne dafa ñëwoon dafa ñëwoon dafa ñëwoon ci Abdul Bokar moomu ngir daw nasaraan yi nasaraan yi xañ na dañ ko dañ ko doon dañ ko doon dañ ko doon wër di ko seet mu daw nag ñëw ci moom làqatu waaw waaye yàlla def moom nasaraan yi mm, di ko wër ba nañ ko ba nañ ko jàppe nga xam ne euh, noon noonu lañ ko jàppee moom euh, Abdul Bukar waaw bañ ko jàppee euh, ñu daat koy rey waaye moom moom Alburi nag yàlla def mu daal di rëcc nga xam day mel ne Alburi moo ñëwoon pour pour pour pour pour pour làqatu si ci moom waaw Alburi Njaay nga xam ne moo nekkoon buur ba Jolof bi ko tubaab yi wër mu daw nag ñëw ci Abdul Bukar moomu nga xam ne nga xam ne moo nekkoon buurub gànnaar ci jamono pour làqatu si ci moom waaye yàlla def moom Alburi moom raw na waaye Abdul Bukar moom moom mujjul raw nga xam ne noon lañ ko noonu lañ ko rayee nga xam ne kon la Cerno Ibrahima waxoon rek ne bu ñu defee li ñu def du ñu taqalikoo ak guerre day mel ne loola nay feeñ foofu ba tey moom Alburi Alburi ñoom tubaab yi jàppuñu ko waaye doom ji wax buuna moom moom moom mujj nañ ko jàpp mm-hmm. sëñ ma Lamin nag nee na Ibra Thierno Ibrahim mii téere bi ñuy wax euh, Risaala Ibnu Abi Zeydin euh, moom saraa ko mhm. nee loolu sama mbokk mi tudd Mouhamad Habbas bokk ci bokk ci maanaam euh, ay ay sati Thierno Ibrahim mii nga xam ne moom la ñuy wax nee na moom moo ko wax loolu waaw Mouhamad Abbas nga xam ne Thierno Ibrahima moom mooy maama moo jur ndeyam mhm. ba tey nee na euh, mook sunu mbokk mi di Hamid bun Ousmane euh, euh, Tëlëwi yi ba tey ñoom ñaar ay doomi bàyyi lañu seen seen bàyyee bokk mhm. ñoom nag ñu xam lañu ci wàllu xam-xam ak ak seen seen bàyyi bu ndaw mooy Cerno Yoro Baal nga xam ne jëmm la juñ xam ci wàllu xam-xam ak lu baax yàlla na yàlla yërëm leen ñoom ñu baax ñoo ñu fi jiite woon ñëpp te barkeel ñi ñi xam ne ñooñu lañ fi bàyyi ci seen gannaaw kon xam naa ñu yemale foofu waxtaan woowu waxtaan wi xam naa ñu yemale ko foofu incha allah ba <coughs> beneen yoon yàlla na yàlla defal dégg ak topp defal nu ak jariñu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu لله الكريم سلم لنا على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني